tax mu di ko waar te booba dem nañu ba imposer sëriñ si ni leen fas wu ngeen di war bu mu am teg dee leen ko maf ñàndu moom sëriñ Cheikh mu wax ni ñett ñoo libéré sëriñ si pour won leen ni lu buur sañ sëriñ sañ na lu ko ëpp ki leen libéré mooy Cheikh Al Omar mooy tafsir Maba mooy sëriñ Touba. sëriñ sépp dem aligné ca ñoom bu buur sañse sëriñ sañse bu buur waree fasu naaru góor sëriñ war fasu naaru góor ndax sëriñ Tuubaa ngi ci pénc mi Maba jaxoo ngi ci pénc mi Cheikh El Hadj ngi ci pénc mi mu nekk ci stade boobu ba yàlla dogal jamono ñëw bi jamono ñëwee ñu jël ñetti point wax ni réew mi dafay dem indépendance waaye bu demee indépendance nañu fexe ba ñett nañu ko dindi bu mu amat waaw ñu ni bu njëkk bi nañu ba chef de canton dootul am nañu fexe ba laman yi daan yor nañu domaine national ñu ni chef religieux yi dootuñu exister ñu song chef de canton yi déggunu soxba song lamañ yi déggunu soxba wut ci kër sëriñ si mu ni may naa bakkan këru daara yi ci réew mi dama leen di dogale yàlla dogal mu Sangor, duma du ma xeex ak moom ci daayira damay créer son parti politique mu ni nag waaye soxla naa un juriste bu ma waxtaanal pour mu teg ma ci yoon fekk booba Lamine Gueye moo fi nekk nekk le plus grand juriste de la OF et de la EF waaye fekk un conflit politique dox digganteem ak Lamine mu ni du tere ma dem seeti ko ba mu demee seeti lamin Gueye ñun nuyoo lamin ni ko bég naa tey ndax li ma seet si xamagul lu mu koy doy mu ni ko ndax yow danga am ci man ñaari cër sa baay laa sa nijaay laa mu ni ko góor gi dafa am lu ma bëggoon waxtaan ak yow moo di sama xel dafa nekk ci wut parti politique te comme juriste nga ma di la laaj loo ma ciy digal lamin ngay ni tekk ba mu yàgg mu ni quoi en tant que chef religieux ni nga amee droit wax ni nañu ma formel daïra noon nga amee droit en tant que citoyen wax ni damay former parti politique mu ni ko mais rekk rek laa la ciy conseiller mooy boo formé parti politique bi mu ni ko ñoom sengoor ngay opposé mu ni ko fexeel ba fu ñu la dabe na la fekk ci yoon ni ko bu boobaa bu nu jëlee sa bakkan baax na bu nu la tëjee baax na yàllaate mu def parti ba parti ba matul weer ñu dem élection ak ko Senghor sàcc waaw dinaa ci jël seede ndax keroog bésu élection ya moom Serigne Cheikh mi ngi ci biir néegam mu di bëccëgu dimanche bu tàng maak moom ci biir néegam mi ngi toog ci tappi bi ci suuf maa ngi toog ci kanam tuuti kenn ñu ñetteel muy El Hadj Bachir Diagne mi toog tey parce que lu amul seede baaxul waaw moom moo ko wax alaaji Bachir Diagne jóge Dakar ci tàngaay bi mi ngi sol benn ensemble gris bu alpaga ñëw sëriñ bi ni na agsi biñ ko ko waxee muy dugg di summi dàllam sëriñ bi ni ko bul summi sa dàll mu ni ko ëpp naa def bi mu duggee dafa wax sëriñ bi ni ko euh, Dakar dafa am ay bureau yu ñu fa bloqué woon pour ñu bañ voter Eh, luma len wax rek may naa ngeen vérifier ko luma len wax lu amul parce que ruus sama âge sama turando mo daan wax ni duma ni nangam dafa haram yalla ko tere ma dor koy bay nee man Maodo duma ko def damay wax ni nangam sama deret attanu dangay jiital sangoor lu jiitu nga jiital yàlla bu yàlla dikkee mu rafet alaaj Bachir Diagne dugg wax sëriñ bi ni ko baa fii ñi ngiy wote sëriñ bi ni ko Tiwaawan mësul am problème mu ni ko Dakar am na bureau yu ñu bloqué woon mais bàyyi nañ leen ñu wote sëriñ bi ni ko dëkk sàngam ak dëkk sàngam ak dëkk sàngam téléphoné nañ ma wax ni dañu bloqué woon biro de vote yi mu ni ko waaye téléphoné waat naa leen wax naa leen ni nanu toj kees yi ñuy wotee te lakk bureau yi bi nu toogee 15 minutes la ñoo wax sëriñ bi ni ko toj nañu biro yi lakk nañu kees mu dem ba mu yàgg euh, pour dama leen di wax pour ngeen xam ki ngeen amal affaire kan la waaw il n'est pas un marabout Serigne Cheikh Tidiane Sy n'a jamais été un marabout jamais mosu ko nekk te wax na ko euh, euh, étudiants yi ca conférence ba mu fa defoon ci l'islam et la contestation ba Sénégal yëngoo ba yëngu étudiants yi ñëw ci man ni ma dañu bëgg Serigne Cheikh conférence ci université ma ñëw waxtaan ceeg moom mu ni ma contestation euh, ban sujet nga fay traité ji l'islam et la contestation président Senghor yónnee ko ndaw pour déconseiller ko ko mu dem université ni ko awma sécurité bu la mën protéger mu ni ko kontewuma ci sa bos ci bu yàlla laa konte président Senghor wax ko ni ko bàyyil bokk ma seet disposition yu may jël mu ni ko Senghor université suñuy jarbaat ak suñuy doom rekk fa ne bu ñu demul wax ak ñoom kuy wax ak ñoom waaye yàlla def ñu dem keroog la leen wax ni il est dix fois plus facile d'être euh, contestat pardon il est dix fois plus facile d'être dispensateur d'injures que d'être contestataire de vocation ni leen saaga yomb na waaye wax mu am fu mu tegu moo jafe waaw bu dee saaga rekk ku ne mën na ko yàlla atte loolu di dox te bien avant loolu Serigne Babacar wax na ak moom Serigne Babacar nee na ko ñoom Senghor fi nu jëme réew mi duma fi fekk wallahi wax na ko ko waaw ni ko fi nu jëme réew mi duma fi fekk ndax ñoom Senghor ñii dañu bëgg jàng ci ñun ni nuy yilife jaam te duma ko nangu sëriñ Babacar Seck ko wax ni ko naa leen faf bàyyeeg seen àdduna ngeen dem ca seen maam ma dem ca seen maam ngeen toogal ko fi ndax yéenay gën a mën a dégg àdduna bi ni ko man lu ma fi fekk danaa alak ñépp te taxul yàlla bàyyi ma fi dimbali nit ñi moo tax yàlla bàyyi ma fi moom sëriñ Babacar si moo ko ko wax ni ko kaay nag sëriñ cheikh ñëw mu dindi ñaari woy ci burdu ni ko waxtu wala réew mi la jëlee jàng ko dinañ dem ba reyante ci seen biir fàttel ma njëkk yëg mu jàng ko ca ba ko moo di bokkayta ak sangoor songee ca fédération du mali ci lu amul benn werante mu jàng ko ku ne xam ne moo di ba nu mu génne senegal fa tabaarakallaahu boobu responsabilité moom la mës di dox mu di koo xam ni itam ku mu gis ngay dem yéene na ni yow danga nga war tedd ba faw waaw dafa am sam benn wëllëre bu ko soppoon di màggat ba photographe soppoon na Serigne Cheikh lool dafa faatu yal na ko yàlla yokk yërëm may waxtaan ak màggat ba mu ni ma gis nga yowmal qiyaam mu ni ma bu yàlla bëggoon ñépp dem aljanna dafay fexe ba caabi ji mu dénk ko Serigne Cheikh mu ni ma bu boobaa mu ni ma malaaka yi lu dul croiser les bras di xool duñu ko def parce que ñëppay dem aljanna ma ni ko am na lu mu wax lu ko niru ma ni ko li mu wax lu ko niru mooy li mu wax moom Serigne Cheikh nee na bala muy gëm ni Sénégal nit dana ci dem safara mu teg ci bëtam parce que nee na mag ñi duñ ko seetaan kooku mooy yéeneem ci bu ngeen ko gisee ak bu ngeen ko gisul ba tax na lu mu def fekk na mu def ko ca jamono waaw lu mu def fekk na mu def ko ca jamono keroog ba mu demee tàggu ji Senghor Senghor ni dafay dem mu ñëw daf ma ni man de Senghor laa tàggu ji woon nee na dafay dem mu ni ma waaye man it war naa bàyyi politique sax ndax màggat naa ci ma ni ko ëpp naa def mu ni ma yéen sax màggat ngeen ci waaw wax na dëgg en 1951 dit que je n'avais pas insigne bu BDS ma sol beere bu verte euh, ak xaftaan bu verte Serigne Babacar si jëndal ma ndax dafa daan soutenir Senghor sans réserve moom itam di sol manteau bu verte waaw du ca desal dara du ca desal dara moo tax euh, euh, li Blaise Diagne daan wax ni ku ni neutre naa rek doo góor ndax nee na penc ku fa am jabar am fa doom di joxe dépense war na lu penc may lijjanti nga bokk ci waaw nee na moo tax ku ni dama neutre du dëgg am na koo àndal dafa baaxul loolu la Blaise Diagne wax may génn maa ngi sol xabtaan bi sëriñ bi tappal ma insigne bi euh, soxnaa sukkan ni ko dindi ko mu ni ko duma ko dindi soxnaa su ni ko dëkk bi dafa yëngu dindi ko sëriñ Cheikh euh, ni ma bëgg ko dindi soxna si ma boo génnee euh, ku la saaga moom soxnaa su sëriñ Cheikh ni ma boo génnee كل خوار سعدك مومي فتبارك الله منك جلول اه، موتاخ غيسنغا من داكور ناك موم تي ليم ما واخ ki ma gën a mere mooy ki ma àtte te xamuma waaw nee na kooku mere na ko ma ni ko sëriñ bi ndax am na loo ragal mu ni ma am na ma ni ko lan mu ni ma tooñ mu ni ma xam nga yenent bi dafa wax ni a zulmu zulumaat tooñal benn yàlla fayul ki nga tooñ fukki yoon du ko fayul benn yoon mu ni ma loolu moo tax mu grave mu wax ni ci xëy suba jëw fukki gor ci xolam moom sëñ Cheikh moo ko wax nee na bëccëg bi fu ko fi yàlla war a amatul du ci julli du ci wer parce que fukki gor yi mu jëw ci xolam na leen baalu àq ba noppi mais tant que baaluwu leen àq ba noppi mais lu valable digganteem ak boroomam mënatu ko fay def waaw ma ni ko xanaa léegi yàlla mënatul alak nit ñi nam ko mëne woon ñu nekk mbaam walla ñu nekk golo walla ñu nekk xar mu ni ma tey la ko dàq waaye yonent bi la rus mu ni ma dinga gis nit di dem ak ñaari noppam ak sañseem nga defe ni doomu aadama la te yàlla ak malaaka yi ko wër yépp mbaam lañu ko jàppe mu mel ni kon fa tabaarakallaahu lu nu war a xam ci wàllu taxawaay lanu ca xam ci moom lanu ko jële mu mel ni itam mësumaa gis mukk ku jóge ci waxtaanam wax ni j'ai perdu mon temps avec Cheikh Tidiane mësul am yàlla dimbale na ko itam ba li nga fiy dégg boo fi jógee boo ko déggatee da ngaa toog ak moom wala nga toog ak njabootam keneen du la ci diggante culture ak diine ak àdduna fa tabaarakallaahu loolu mooy li nu xam ci moom dama am sam benn wëllëre tubaab écrivain écrivain pas un petit un grand mu jóge tugal ñëw ni ma dafa am téere bu may bind ci réew mi mu ni ma te soxla woon naa ci waxtaan ci ak Serigne Cheikh ma tànqam ko mu insisté ma tànqam ko mu insisté ma xam ni lu sérieux la ci moom yàlla àtte ma wax ko sëriñ bi mu ni ma nanga nga ànd ak moom ñëw bi nu ñëwee toog mu ni sëriñ bi ndax mën naa utiliser sama magnétophone mu ni ko bindal waaw bindal parce que bind moo gën a sax rabbi ni ko bala may bind dama la bëgg a liiral passage bi ma def ci réew mi sëriñ bi ni ko bismillah mu tàmbali di ko ko liiral di ko ko liiral ba agsi ci benn paragraphe sëriñ bi ni ko lii du sa philosophie tubaab bi ni tekk siggi xool ma sëriñ bi ni ko du sa philosophie mu ni ko si mu ni ko du sa philosophie mu ni ko mais kon philosophie kan la sëriñ bi ni ko diw moo la ko wax tubaab bi sànnikaan na bi ci suuf yëngal bopp bi ni ko vous avez raison yàllaate ñu génne tubaab bi ni mu mais Nous mu def ba xam ni kii moo wax tubaab boobu am at nekk ci tugal di wëllëre Serigne Cheikh ñu Jean-Baptiste Colbert ci moom rek la daan passé vacances te kenn du ko gis moom Colbert du déglu rajo du télévision du lire benn jours

ko posé sëriñ bi di ko tontu muy posé muy tontu ba mu yàgg dar bopp bi Colbert jonkan ci suuf ni Cheikh Tidiane tu connais tout ma ne ko gis nga Jean-Baptiste Colbert boobu ma ne ko lii moo ko wax ci ci moom ma ne ko donc man ci son wàllu bopp mënuma la wax ludul loo jàpp ni xamu ko xam na ko waaw loo jàpp ni xamu ko rekk xam na ko te dinaa wax njaboot yi sës ci moom di ay xaleem di ko jàppale ci biir kër gi dama leen di wax ni dee leen éviter di ko wax lu amul man leen ndax moom Serigne Cheikh wax na ma ni kilifa balay baax njabootam di ko nax mu xam ko te bañ leen ko woon mu ni ma loolu mooy générosité waaye bu fekkee lu la sa njaboot def nga ni di nga xam ni gënoo ma muus mu ni ma kooku dujj ko sang mukk ah, sang dafay bàyyi na xam ni lu ko njabootam nëbb respect moo tax waaw loolu mu wax ma ko yàllaate nag tubaab ba jaaxle lool ñu yendu tuuti une journée waxtaan ñetti fan après mu dem pour wax leen rek ni euh, dafa am loo xam ni bu ci sunu yaakaar jógee ñun ñëpp ñu alko te mooy li fi mag ñi bàyyi moom lañu am mooy sunu refuge waaw dañu dem Touba seeti Serigne Abdou bi ñuy woññeeku mu wax Serigne Cheikh ni ko jaaral njaareem ci sa baay Mor Mbay Siise yal na yàlla yokk leeral bàmmeelam mu di góor gu neex te simple te adduna te yàlla daf daan toog ba mu yàgg mu jël waxande ñaw ko yére ba mu fees yónnee ko Serigne Cheikh ñu dem nag jaar fa bi nu duggee ci saalam li njëkk a frappé Serigne mooy foto yi mu wekk ci biir saalam amul kuy kilifa àdduna te sa foto nekku fa amul kuy kilifa diine te sa foto nekku fa moom góor gi Mor Mbaye Cissé ci biir salon amul kuy mbëru làmb te sa foto nekku fa amul kuy xale bu jigéen walla bu góor bu mës siiw ci Sénégal te sa foto nekku fa Serigne Cheikh di xool foto yi ba mu yàgg mu ni ko waaw góor gi lii nag mu ne ko bëgg ku fi dugg rekk fekk fi sa waay waaw mu wax Serigne Cheikh ni ko maa sa bàyyi Abdoulaye rek pour nga jaar fi mu ni ko ndax nit du dundal sa daara te kooka mësu a jàkkaarloo Serigne Cheikh daf daan def léeg mu jël camion yépp ko dund ba mu fees mu ni dem leen jox ko góor ga ni ko na ko jox taalibe ca daara ji góor gi Mor Mbay Siise di def téere bu mu baax lay yónnee si ko ko waaw ni ko danga sagal ñaari ñi nga am liñ fi bàyyi muy Sëriñ tubaa ak Cheikh Al Hadj mu ni ko danga leen sagal ci xam-xam ak cëru yàlla ba moo tax lu nit am war koo jox doomu nit yàlla rek war nañ ko teg ci sa loxo waaw yàlla àtte ñu waxtaan fa waxtaan wi am solo li ma leen wax léegi ni leen Serigne Cheikh boo jógee ci mbooloom la muy waxtaan ak yow nga di ko dégg te teg ko ci teguwaay boo ko déggatee da delsi ci moom waaw boo ko déggatee ci moom nga delsi boo ko déggul ci moom ci njabootam nga koy dégg ña gën a yar ca njaboot ñu dégg verbam soutenir ko mooy almustarchidina wal mustarchidat فتبارك الله المسترشدين والمسترشدات سري مصطفى اك نيمو كو بوكال شيخ الحاج مالك نغنا لا توك ak ñanu ko seqal ñoom parce damay wax ni dañu xaw lëjal maam Maodo comme dañu nekk enem léeg ñu woo ko rek yónni ko waaw euh, du ko yërëm sëriñ Moustapha du ko yërëm Serigne Mansour du ko yërëm waaw yónni ko demal doxi nangam mu sawar ci dem dox ko ñëw tabaarakallaahu moom Serigne Moustapha mënu leen seede mais man maa leen mën a seede Euh, sëriñ bi ma di la seedeel ni sa njabootu bopp doonte la da koy bañ toujours di wax ni doo seen kilifa sëriñ Babacar si mooy seen kilifa ñoom it ñu lànk ni sëriñ Babacar du seen kilifa yaay seen kilifa loolu kenn mënu ci dara waaw ma di la xamal ni wax nañu ma ni mën nga toog junniy at yu ñu la dul gis te du yàq ci seen pas-pas dara muy góor muy jigéen euh, ñu ni boo leen ni woon tey nañu doxe fii ba bu ñu demee nanu boole dex gaag géej ga sol ko ci ay bouteille ba ngàcc ko daanu ko def ñu wax ni naa la wax ni amul kenn ci ñoom kuy xëy suba te du miraas boppam foofu la pas-pas mën a yem parce que Ali ibn Abi Talib rek a ko daan def moo daan xëy suba su xëyee renouveler testament may yonent bi bakkanam waaye du boobu tey tey li nga wax mooy lu la jaaxal mooy nu ñuy def ba teggi diis diis bi ci réew mi booboo la yitteel ñun ñëpp d'accord na ceeg yow wax nga ma itam ni ma sa yaakaar mësul tas ci réew mi parce que am na lu mag ñi mën a réparer mais kan la mag ñi déglu waxuma waxuma boroom at yu bari mag ñi laa wax mag ñi laa wax gis nga turandoo moo ñëw faas mag ñépp won ko gannaaw mu jël xale yépp responsabiliser leen ba nuy féey ci ko asamaan si jëm ci xadratul ilaahiya turandoo ma ko def ci faas te mën na ko ci xale yi ma bëgg la sëriñ Babacar si defoon mag ñi dañu ñëw seet si ko ni ko sunu mbay yépp janax yi lekk na ko garab gu dul gu wut nañ ko jariñul dara ñu bëgg nag nga dimbale nu ci moom sëriñ Babacar boo ko mësaan delloo cëram rekk mu mu def lu kenn mënul dafa amoon fierté xam li mu mën mag ñi ñëw diis ko ko mu ni ah mu ne fan yëpp maa ngi dégg rekk ngeen di yëngu di wut ay poudre ak yëf waaw ñu ni ko léegi nag sa ñaan lañu soxla moom Sëriñ kër mu ne tekk ba mu yàgg mu ni allahumma um naa leen ñu toog fukki fan ak juróom mag ñi dellu si mu recevoiraat leen ñu ni ko dañu bëgg nga defal nu ñaan mu ni lu xew ñu ni ko janax yi dee ci àll bi seen xet ah mu ni xam leen lu ngeen bëgg nag ah. yéen a ma ñaan loo ñaan naa yàlla sagal ma ci li ma ñaan waaw euh, mu di loo xam ni ñaar du ko am ñett du ko am kenn rek la ko yàlla jox te ci lu nu xam bu fekkente ne lii nu leen wax amul bu nekkul ci loxoom rëbb bu am ci àdduna ak alquran yàlla na ma dal bala may génn sal bi li ma leen wax mais xam na ko ci boppam parce que damay wax ni bala nga doon mere sa bopp nga ñëw fekk ko mu tëdd ci lalam nga ni ko àdduna ngiy tukki nga xool réaction xam nga lum la ciy tege bu fi dul bàyyi kenn rek baax na jeex na ci moom àdduna ngi tukki du fi bàyyi kenn buñ demee ci kanamu yàlla mu am ci ñoom solution jeex na waaw te loolu moom xam na ni mi ngi ci loxoom man xam naa ko waaw gis nga Serigne Babacar si dafa nekk fii ci Rue Thiers bombardement dakaar bi passé tuuti président Lamine Gueye bëgg dem Paris te amul moyen bu mu demee pour wax la mag ñi Lamine Gueye ñoo fekk Serigne Babacar ci Rue Thiers ni ko góor gi dem bëgg dem tugal te awma lu ma yóbbu ma bëgg nga ñaanal Serigne Babacar ni ko à ah une condition nag dama koy conditionné li ma lay ñaanal lamin Gueye ni ko ban condition nga koy conditionné mu ne ko bu ma la ñaanalee bul tasee keneen tàllal ko sa loxo mu ne ko ndax bëgguma keneen ñaanal la li ma ñaan yàlla nangu ko sa xel di werante ku ci yàlla nangu bosam Lamine Gueye ni ko bu ma jógee ci yow maa ngi jëm directement sama kër Serigne Babacar ñaanal ko lamin dem këram tëdd bi mu añee bay bëgg a sieste ñu ni ko dafa am benn gendarme bu lay seet Lamine Gueye jóg recevoir gendarme bi mu ni ko gouverneur général moo ni daf la soxla Lamine dem seeti gouverneur général gouverneur général ni ko kii dépêche bu tombe léegi la mu ni ko gouvernement français dañ la soxla ni nanu mën a def nañ la wutal lu la indi même bu dee avion militaire e, Lamine jël télégramme ba jubal si ci Serigne Babacar ni ko góor gi sox ba tàkk na mu ni ko léegi nag yaa may wutal ku ma gunge Lamine ngay wax ko sëriñ Babacar si Serigne Babacar ni ko jëlal Thierno Amath Mbengue ni ko dégg na tubaab ndaw la te bëgg na politique pour won la ni loo dénk ka ko moom rek gis résultat ba waaw mu mel ni kon ñun lu mu joxoñ rekk pour ñun loola moo valable wax naa leen ba tàyyi ni leen bu fi sëriñ Babacar si delsi woon te bëgguñu déglu ko rekk na jaar ci moom dana ko yomb waaye bu ko déggul nag ah lu dul ñëw wax ak ñun daf koy jafe waaw dana ko jafe lool mu mel ni daal kon lañu wax ni Mansour Jaxate sunu doomu bajjan aminte abdu dañu wax ni bu ko dàqloo xare waaw bu ko dàqloo xare ndax gàcce dafay am moom la ñuy dàq waaye laaj ko koñ ba mu dëkk ku fa dàq ñeexu cere خلق الله للحروب رجالاً wa rijalan li maqsadin an taridi laaj ko cere rek mu wax la ki ko dàq ci koñ bi ba tax na ku ne jox ko les responsabilités waaw boo ko jaxasee rek àdduna tukki kii responsabilité mooy fu ñu gëlëme ñëw ni ko won nu yoon réew mi nag metti na réew mi metti na réew mi diis na réew mi naqari na te itam li fi xew du lu équipe mën dara du lu junni nit mën dara ku gis ni mu demee di nga xam ni jógewul fenn ci kaw asamaan si la jóge langage yu asamaan nag du ñépp a mën wax ak waa asamaan kon moom mi nga xam ni ñun moo nu mën a waxal ak waa asamaan e diis na de fu mu nu ci jaarloo nag ci kàttanu yàlla dina nu def lool mu mel ni itam seede bi nu def ci Moustarchidine sëriñ bi dinañ la ko ñaanit nga ñaanalal nu sunu mbokki gendarme yi ñetti fan noppalu wunu dañ ko jël def ko seen yi bopp wax ni nu ngeen ko tërale noonu lañ leen di jàppale ci kaw jàppale leen ci suuf def nañu ko ak yéene waxuma ni def nañ ko ak service parce que service di nga ko sant ku ko yéenewul mais ñoom dañ ko yéene booleeg seen service waaw kon nga ñaanal leen yàlla waaw ñaanal leen yàlla ci biir ñaanal leen yàlla ci biti waaw ah, responsable yi nekk ci foire bi itam surtout taalibu ya ñoom itam rek ak joxe bi nu ko joxe muy joxe yéene fa tabarakallahu ñoom itam nga defal leen ñaan ci biir defal leen ñaan ci biti ah sëriñ Moustapha mu ni ñi nga waroon a njëkke nga mujj ma ni ko du graaw ah, waaw ma ni ko du graaw ndax xërte xerte gu ëpp rekk la waaw dañu am fii ci ndakaaru sunu benn baay par alliance mu bëgg soxna ca Tiwaawan te waa Tiwaawan dañu mën wàcc mën a fomm mën a toxal waaw léeg nga topp ci ñoom wax leen dara lu war a réglé wu tey mu nga jëm ak ñoom fukki at ci kër gi la waaw ci mag ñi la ñoo yàkkamtiwul seen dara mu bëgg soxna Tiwaawan dimanche bu jot ñu fomm ko ba am benn bis nag ña koy ñaanali ñoom ñëpp mu yeb leen ci oto boppam wuti Tiwaawan ni leen nañ dem naka la ñu dem Sëriñ Babacar wàcc recevoir leen mag ñi ni ko soxna si lañuy ñuy dox si sëñ Babacar ne ah lii de moom xam naa ku yebu rekk gaaw leen koo defal ngeen dellu mu ni ku góor ki nu mu tudd góor gi ni ko mën a waaw ndeysaan sëriñ babacar ni ko tey nga doxantu ba ci gu naar bi ndax ñu eggal waaye loo topp ci ñoom rek dana xaw a diis waaw waaye ñii sunu sang bu jigéen bi toog soxna umukul soom et eh, soxna Umu Kulsum nag duñu ni suñu ndey la waaye suñu maam la waaw ndax cëru ndey bi soxna Safiyatu ak soxna Ayda dem jël nañ ko ba noppi waaye moom nag suñu maam la waaw e suñu mbokk bopp yitam mi ngi fi di Sidi Ahmed Si ci desit moy di sunu njaatige di le grand serigne de dakar agit it suñu doomu bay maître mustapha diop bu jurbel wala bu dakar wa bu dakar xam na li ma ko wax sëriñ bi loolu rekk laa ci bëggoon a wax pour di seedeel nit ñi ni jàpp nu kenn kilifa ku dul yow di la xamal ni itam yaakaaru kenn ku dul yow di la xamal ni itam la ma sëriñ Moustapha Sy Jamil yónni ci yow yàlla yàlla yokk leeram te yaa ma fa yónni heure bu guddi ma dem fa heure bu guddi nga wax ma ma wax ko mu wax ma ma wax la nga di ma wax ni war ngeen yokk yitte nga ni ma ndax sëriñ Moustapha ba mu làqook léegi waxtu wu ma géntee gis ko sabadoor lay sol nga ni ma loolu nag dafa mel ni daf leen di ñaax pour ngeen gën a def effort waaye loola loolu ca tëralal ñu def ko waaw loolu ca tëralal ñu def ko di gën a gàtt daal moo di ku fi dikk lu fi yiw yàlla nañu ko bokk ak yow ñi nga xam ne taxaw nañu ci organisation bi ñéppit seen taxawaay yàlla na ko yàlla rafetlu fa tabarakallahu taala ñi ngi renouveler maag Serigne Mansour ñi ngi renouveler sunu confiance sans réserve ci Serigne Mustafa.

ci rakkam yi ko jàppale ci biir jàppale ko ci biti ndax léeg-léeg daanu di dem ba yërëm leen ngir yàlla ak coono daa dem ba dootoo mën siggi xool leen waaye xam nañu li tax ñu di ko def xam nga sëriñ Babacar si lu mu waxoon sëriñ Cheikh daf ko ni woon bu ëllëgee kër gi lu ci tardé sa maam yow la koy laaj duma ko laaj man du ko laaj sa baay Mansour du ko laaj keneen mais kooku responsabilité la këru cheikh ni mu toll ak la ci biir ñu ni la bu tardé yow lañu koy laaj am na luñ ko ci sédd mais li ma gën a yéem maa ngi ko koy wax sëriñ Moustapha fekke na ko sëriñ Mansour fekke na ko maam Maodo Mele fekke na ko ma ni ko sëriñ bi li ma gën a jaaxal mooy lu tax léeg-léeg sa turandoo ngeen di lijjanti lu góor gi yëw lu sëriñ Babacar si yóbbu moom mu lijjanti turandoo ci dara li ma gën a yéem bokk na ci waaye sama xel dafa dellu ci lu ko sëriñ Babacar si daan wax sëñ Babacar daf ko daan wax ni sawaratuma ci beranteeg yow parce que bu ma tàmbalee sa turandoo ñetteel nu te yow lay gis nga loolu yépp ak cër bi ni mu toll mësu leen dégg oto bu takk rajo ni mu ngi koy ziyaara ji ëpp na ko ëpp na ko waaw mësu leen koo seen mukkit xàmmee ko ci kaala gu rëy wala dallu marakis yu rëy soxlawu ko bi ñuy ñëw dafa ma ni sama mbaxana mi de dafa mel ni mbaxana xale la ma ni ko rafet na tabarkalla ma ni ko solal rek waaw ma ni ko baax na waaw ah, ma ni ko tabaarakallaahu baax na waaw ah, ni ko oh, tabaarakallaahu yow ma ni ko baax na ah, comme moom eh, eh, ndar la dëkk moom jàmm rekk la xam moom yiw rek la xam gis nga lu lëj lu lëj xam nga ñu ko lëjal ñun ceddo yi juddoo ci awoon ci biir Kajoor waaye du ci moom mukk du ci moom de waaw moom mii du ci moom waaye ñun nag léeg-léeg ñu yor kaala sëriñ léeg ñu yor maaka ceddo booboo yàq yépp bu ko defee ñu déglu ko ah fa tabarakallahu sëriñ Moustapha wax na leen premier parti fii la woon yàlla may na nu ñu def ko deuxième partie fii la woon yàlla may na nu ñu eggale ko troisième parti fii la yàlla may na nu ñu ngi koy defaat tey ci kàttanu yàlla ak yonent bi barki sëriñam Cheikhul Xalifa ci waawoon la nu jëm Tiwaawan la ñu jëm de xam nga kuñ fay fekki Sëriñ Babacar Si bu ruuxam tiimatul jawwu tiwaawoon rekk ñu bàyyi tiwaawoon ruuxu sëriñ Babacar Si moom fu mu toog ruuxu sëriñ Babacar a ngi jawwu ji moom Seyid Cheikh laa wax bokk ko kenn moom rekk moo ko moom ba tax na ñun cëram xamuñu ko parce que benn cër lañu defe ni moo gën a fort ci cër yi doomu aadama di am ci kaadaru diine mooy pour mu nekk xalifa mais loolu lañu yaakaaroon ni bu ko nekkee mu doy ko sëriñ Babacar si jóge fi cinquante sept ñépp ni dafa bëgg nekk xalifa sëriñ Babacar mu dem ba cinquante neuf mu formé parti politique ñu ni jeex na dafa bëgg a nekk xalifa sëriñ Babacar wuutu Senghor ku mën denc tontu la yàkkamtiwul dara tontuwul loolu ba 67 mu wax ni ñi ni dama bëgg a nekk xalifa sëriñ Babacar Sy mu ni xamunu ma ñi wax ni dama bëgg a remplacer Senghor xamunu ma mu ni billaahi ladi laa ilaaha illaa moom moo ko wax mu ni cëru yàlla benn rekk laa ci mébét pour am ko mooy nubuwa yonent bi mu ni bu dee xilaafa sëriñ Babacar si xeeb naa ko ba faw loolu moo ko wax ci rajo en 1967 tontu ña doon wax 57 tontu ñu doon wax 59 mu ni bu fekkee mës naa xeemeem xilaafa sëriñ Babacar si nu bu wa yonent bi la mës di xeemeem mu ni ñi wax ni itam dama bëgg a nekk place sangor mu ni sangor li mu nekk du nguur alkande la mu ni ndax dugg ci oto piip piip jeeg par par yi gor yep nga tàddeel seen soxla mu ni loolu mooy nguur mu ni alkande mu ni bu may mébét nguur nguuru Alexandre le ga lay mébét mu ni bu dul nu yonent bi nag du nguuru Alexandre le Grand benn jënu óoba moo leen gënal jënu óoba parce que mën nga ci añ yaag sa njaboot lu mu bon bon te mébét teguwul fenn parce que xilaafa balay jariñ sax moo tax mu dem ca yonent ba teg mbagg loxoom ci mbagg yonent bi waaw wax ni moom laa moom laa mébét nubuwa waaye xalifa nga rek man ma ñëw wuti léegi kaala ni leen je suis le calife euh, de Serigne Babacar Sy cooway bari moo tax mu ni soxlawu ko boo ko fa dàkkee rek la ko xam na boppam ñun ñoo ko war a xam xam na cëram ñun ñoo ko war a xam ñi ngi sant yàlla nag ndax fañ koy dàkk te du fa ne waaw boobu rek mooy li am solo ñu sant ñépp ñaanal yàlla ñépp tabaarakallaahu ndokkeel ñépp ci bés bi ñu déglu ko mu wax ak ñun li muy wax ak ñun ñaanal nu yàlla bu fekkee natt na ni ñaanal réew mi jot na mu def ko bu fekkee ñoragul mu bàyyi ba fa mu ñore mu def ko parce que duñu ko jiitu ci dara moo nu gën a xam lépp lépp bàyyi nañ ko ci loxoom fa tabarakallahu yàlla sàmmal nu ko waaw yàlla mottali yéene cheikh il xalifa ci moom yàlla mbott mottali yéeneem ci cheikhul xalifa yàlla sàmm njabootam nag waaw yàlla sàmm njabootam damay wax ni eh, fàtte naa ñaanal son bopp bu yàgg waaw ah. njabootam lay ñaanal ndax bu ma ko waxee dugg ci biir boobu rek moo am solo yal yàlla defal nu jàmm biir ak jàmm biti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa عليكم